te billaahi la si laa ilaha illa huwa xeex bii ngeen di xeex Sonko du ngeen ci am ndam ci saahir du ngeen ci am ndam ci baatin billaahi la si loolu moom mën nañ koo waat ci yàlla mën koo waat ci alxuraan ndax xam nañ li topp Sonko bu doon ay caaxaan baa ak fen du ko duñ ko topp te mësuma fàttaliku ci histoire u àdduna fu yàlla dajalee ay ndaw yaakaar loo leen dara ba noppi tas yaakaar ja loolu mësta am te lii nag yaakaari ndaw ñi la yaakaari góor ñi la yaakaari jigéen ñi la yaakaari sëriñ si la yaakaar yi nit ñi jàpp ci ñoom jub yépp koo ci waxtaanal ci biir nekk dana la la Sonko nekk sama biir xol loolu nag du organisation kenn du lu kenn may kenn bu doon bayre bu ñu sangoo ñoo ko koy njëkk sangoo bu doon ñaan gu ñuy ñaan ñoo ko koy njëkk a ñaan lu yàlla subhaanahu wa taala di def ci téeméeri at yu ko neex wala ñaar téeméeri at yu ko neex mu sàkk ab jaam def ca moom la ko soob yàlla moo jël def defam def ko ci Ousmane Sonko yàlla nag ba mu jëlee la muy def ci Ousmane Sonko ba mu jëlee la muy jël def ko ca euh, yonante yàlla Muhammad téewut daa jël abo la abo abo lahab teg ko ca wet ga ba mu jëlee la muy jël def ko ci Moussa daa jël firaw na teg ca wet ga kon jël li muy jël teg ko ci kaw Ousmane Sonko du teree am ñoo xam ne seen xol lëndëm na seenu fit dëgër na réere nañ yàlla bañ nañ lu baax ñu jàkkaarloo moom ne ko mbir mi du fi amee du caagi neet usmaan Sonko dafa dem ci kaso bi moo ñoom Bisiru Jomaay Fay kon ah yéen ko nangam nangam yonente yàlla Muhammad mat Makka la juddoo gën a bëgg Makka jëlee ko makka dem waaye tëréewut ba muy demit la yàlla bëggoon ci moom génn màkkaat toog màkkaat ci yam am na Cheikh Amadou Bamba xaadimal Moustapha mii dafa sañ ci Touba mu gënal ko fépp ci kaw suuf xat-xati àdduna tax na jëlee nañ ko fi ba génnee ko réew mi te tëréewut lam doon samp xëy na samp ba tey dara fayu ko kon Ousmane Nelson Mandela bu ñu ko jëlee jël Mahatma Gandhi jël ñoom euh, ayatulaay ni amul benn nit boo xam ne da ngaa woote dëgg dëgg ga sedd ci say loxo ba nga xëy réaliser ko toog amoon ci benn problème loolu mësta am ku sañoon nag Ousmane Sonko du dem kaso ku sañoon kenn du tas parteem ku sañoon kenn du ko def lenn lu ko naqari ndax nit doo ko bëgg ba noppi di ko yéene musiba waaye nag amul benn nit boo xam ne mas ngaa woote lu Ousmane ko woote ba noppi maanaam amul benn jafe-jafe boo xam ne bu ñuy netti la sa histoire danañ ne histoire bi kat jafe-jafe yaa ngi nii teetulaay xumay ni liñ ko arrêté arrêté wuñ ko Sonko liñ ko teg teguñ ko Sonko te mujj naa mujj naa not not ñooña ba not tubaab yi kon nag lii ñuy def tey yi lañ ci gën a am yaakaar tey lañu ci gën a am fulla tey lañ ci gën a am fit te tey lañ ciy gën a dox te wallahi yàlla ñun la àndal te liñ bëgg danañ ko am